asalaamaaleykum gars yi salaamaaleykum yéen ñi suivre Zambro TV comme ni ñu koy defee gars di leen toppal champion ndaanaan yi tey nag dañoo déplacé ñëw ba Saly ah Saly ñax-ñaxal mhm. seeti champion bu mag ko xam ne kenn dootu ko présenté ci lam muy Modou wala nga ne ordinateur bu sali moom lañ seet si ah fas waxtaan ak moom ci carrière am ci mi avant tout d'abord dañ koy bàyyi mu nuyu mbokku téléspectateur ñu koy suivre à travers Zambro TV Modou nuyu nañ la ah, naa la Zambro mhm. maa lay bëgg di la ziar mhm. di nuyu gars Modou moom ab xale bu dëkk Saly la rek maa mm-hmm. ngi Saly yoroo Saly mm-hmm. tamit di suivre bëre mm-hmm. mooy lool waaw. moo dañuy fekk la fii nii ci biir Saalum ngay entraîné daa mel ni yaa ngi waajal restant saison bi de. waaw noonu la demee. nekk ci kaw rek di waajal saison mooy loolu. mais ñu gis ne eh, ordinateur bu Saly xanaa ordinateur du Faye yàlla si nekk nga tuddee sa bopp wala nu mu demee noonu. waaw moom laa tuddee sama bopp kay. noonu la. mais lu tax nga tuddee sa bopp ordinateur. non sama benn gars yi moo ma ko tuddee rek. Hmm. nee na yow mel ni ordinateur. Hmm. ndax boo xoolee daal. Hmm. lépp nga mën daal. noonu la demee moo tax mu tuddee ordinateur. moom moom mu ngi tudd Babacar sax. waaw moo ma tuddee ordinateur bi sax. waaw moo tuddee ordinateur kon kon Modou daal jékki-jékki tuddee sa bopp ordinateur gars yi ñoo la tuddee ordinateur. Ah. gars yi ñoo ma tuddee ordinateur mais man daa woon bindoo sa ordinateur. mais gars yi ñoo ma ko tuddee nag tur bi dem ba law nii ba àgg fii mooy loolu. mais Ogdi loolu duggal man waaw. man suma turandoo mbër la te tamit damaa fekk sama mag muy bëre waaw may ànd moom chaque jour mooy loolu mën naa ne sax moom moom ma dugal si làmb kan la on a dix waaw moo nekk sama ginnaaw mën mhm. naa ne moom ma dugal si làmb ndax damaa ñëw fekk muy bëre tamit mhm. may ànd ak moom chaque jour mhm. mooy moo ma si làmb mais og de nga dugg ci làmb est bi ngay dugg say waajur nangu woon nañ pour nga bëri man waaw samay waajur moo suñu see bañ billaahi ñëpp si nangu waaw. da nga dugg ci làmb ban catégorie nga duggee da ngay jaar ay mbapat wala daa jékki-jékki saa yi ñëw ci xaw ga duy. ordi waaw saako ceeb la njëkkee. Hmm. waaw jël naa saako ceeb bu bëri. Hmm. bilaahi. Hmm, fii nii biir sali wala biir Mbour. Saly Mbour lépp. waaw jël naa fi ceeb bu bëri. mooy lool mais Ordi ngay jël euh, làmb yi ay saako ceeb bi Ordi mais yow ban a nga sant ne yow mi wax nga doon mbër. man ba may bëree raw gàddu. laa sant ne war naa mën a doon mbër. may ngi raw gàddu lat woñu fatik mhm. waaw moy ané ba ki ni ko sax biram bi sin daanee ordinateur kii rërëg waaw biram bi sin daan rërëg waaw année boobu ané ba biram bi sin daa daan rërëg mhm. si su ci semaine bobu non mhm. lat woñu fatik di dem fatik bëri ji fofu daa wax daa waxoon sax ñet ñetti catégorie la amna raw gàddu tank poids lourd ñi ñëw fef ben poids année boobu nag. Mm. ba ma daanee Birame Mbissine. Mm. ci laa gëm ne man war naa mën a doon mbër. Mm. kon ordinateur bu sori mos na daan Birame Mbissine. mos naa daan Birame ah. du ndundox waaw. Ah, ndundox. <laughs> mais Ogde ba léegi Ogde ban année nga dugg ci làmb jéegi. man. Mm-hmm. man kay nii rek. xamatuma sax ban année la. waaw mais Ogde jaagul avant muy dugg ci làmb Ogde jaagul ay école wala. Ogde jàng na. Ah. jàng naa ba quatrième waaw. nga bàyyi ma bàyyi waaw lu tax nga bàyyi mu noon xaar ba dagg beneen bi soog a soog a sama grand bi moo bàyyi loo di ma teel ay cu ma koy teel ay cumbukaay rek waaw ci làmb yi di tardé école tamit ñu may bind ay absent yu dul jeex mooy loolu loolu ma gën a tax sama bàyyi mooy loolu bilaahi moo noonu la demee mais og de nga nga ne bi eh, ngay def raw gadu boobu nga sentir ne wax nga doon mbër mais sa saison boobu ñaata drapeau nga am ci raw gadu yi ma xool man dama doon bëri ay drapeau dama doon ay vingt nangam drapeau wallahi romb ay vingt nangam drapeau. ci saison saison ren jii laa gën a néewle drapeau. te sept hmm. ci saison. ci raw gàddu. raw gàddu waaw. Hmm. raw gàddu tànk. sûrement zone trois. Hmm. ay njaaraw taaxum luuli. fii waaye ni nga ko waxatee sax ay sànjara yooyu noonu. foofu yooyu yëpp bëri naa ko raw gàddu. moom doon jël raw gàddu yu bari billaahi. mais Ogdy euh, yow ñaata at nga def ci kaw gàddu yi. <laughs> man raw gaadu. ay ñaari at rek. ñaari waaw. Mhm. Uh-huh. mais si biir ñaari at yooyu ban saison moo gën a ci saison yi. man moom dama doon balance. mooy mhm. dakaar ba ndox ma. Mhm. amul mbër moo may laaj ne ma dama mas ngaa bëri moom ma ne la déedéet bëriwul de mbëru tànk yi. boo xoolee kii daal laa su musul bëreel gaja waaw loolu laa loolu laa sentir daal. koo daal laa mosul bëreel waaw. Hmm. mais Ogdi euh, nga def 200 ci kaw gaddu Ogdi jékki-jékki saa yeeg tànk ñu bari naan Ogdi euh, est-ce que mënuloon xaar ñi naan motul tànk yu demee noonu Ogdi est-ce que yaa ngi bàyyi loolu xel. non suñ zone bi boo xoolee raw gaddu bëriwu fi. ndax hmm. tànk poids loolu la ñuy dugal. Hmm. loolu moo gën a tax sax ma yëg tànk. waaw nga gën a yëg tànk. waaw. mais est-ce que bi ngay yëg tànk say accompagnateur wala ñi la jege sa staff nangoo nañ pour nga yëg tànk. waaw ndax moo fi sës. Hmm. waaw boo xoolee ay mbaru tànk kese ñoo fi nekk. Hmm. te ñaari drapeau ñoo fi am. Hmm. loolu moom ma yëgloo tànk nag. Uh-huh. nga ñëw saison ren nga am sept final au est-ce que mën nga ñëw saison ren bi. saison ren bi waaw dama ko préparé sama mbokk rek. ànd ak ñu ma war a àndal. waaw bëri si fulaak fayda. yàlla may ma li ma am noonu. mais Ogdi euh, bu ñu jógee foofu ñëw ci confrontation diggante yi maanaam ñi nga bëggal. parce que yaa récemment ñëw nga Ibamar bëgg a foofu ak Tony Junior bu neex boo xam ne amateur yi mën nañu ko fàtte. Mhm. est ce que Ordi mun na ñëw ci combat boobu. maa ngi Tony. maa ngi nuy nuyu tamit au passage. Mhm. sama gaañ la nii rek. Mhm. mooy loolu. tamit mbër la man mbër laa. xëy na yàlla mooy def ñuy daje nii rek. mooy loolu. bu ñu dajee daal day neex amul mayante amul dara. waaw mais Ordi waa ji génne la na demee daa mel ni Ordi nanguwul ci décision arbitrale bi nu mu demee noonu. ah arbitre Dakar ñuy def. teguñ ko fenn. boo xoolee tooñ dama koo génn chef de l'état yi si ah, dimanche génn chef de l'état waaw ah, génn chef de l'état yi waaw si dimanche ba ñu demaat dimanche bu si topp ñu demaat Dakar mm-hmm. ma dan ko ñëpp nangu mm-hmm. arbitre moo nanguwul mm-hmm. barki yàlla nañ ñu bëriwaat mooy loolu ma ñëw di def recours Malick gars yi wàcc foofu di saaga Malick ne non non man dootuma dugal recours ndax da ngeen naa indiscipliné te man sama yoon nekku man su dem lam maa sama benn booy ñooy ànd léegi gars yi wàcc woon foofu nag mu doon wax lu naan duñ def recours bañ maa jox sama xaalis sax mm-hmm. après nag ci la gars yi waxtaan ak moom mm-hmm. ci la ma doog jox mooy loolu jox la sa xaalis waaw ah, ak licence bi mais bu daa mel demi-finale ngeen tase woon de wala waaw ah, demi-finale la woon waaw mm-hmm. demi-finale ngeen combat bu neex est-ce di mën nga ñëw ci combat bi parce que combat bi yàgg na de waaw ah, combat bi dafa yàgg moo tax moo du ma see dewaat noonu <laughs> billaahi man daal wër naa ko ndomb faxat naa ko wër ko ndomb mu rëpp quatre appuis ñetti yoon la ko def quatre appuis bi ma bay ko mu jël loxom bi boppam bi tekk ci kaw loxom bi waaw a nga CNG dane bu ñu la wareen doom sa bopp bi tegal sa kaw loxo rek ñàkk nga xam nga loolu ñaata daanoo ngoog cinq daanu si benn benn làmb arbitre bi bañ loolu mënuma si dara xëy na tamit noonu la ko yàlla dogalee woon rek mooy loolu mais ba léegi euh, Ordi euh, bu ñu jógee foofu ñu ñëw ci euh, Abou Assef dégg nañ ne ordinateur bu Salim mos na daan abu Assef est-ce que Ordi mën na ñëw ci combat boobu maa aw aw moom sama gaayan la ña bokkoon fii di entraînement waaw dañoo dem fi mu la quinze nag yi demi final ñaanante ba sonn mu bañ sama grand bi ne demal bëre ak moom mu bëre ma daan ko mooy loolu waaw Zambro man ba may bëri tànk raw gàddu si laay daan ay poids lourds lay wax ni Toubacouta fekk naa ko Joal génn ko par point Toubacouta men men Bugu Saalum Simon fekk naa ko Ndof daan ko final cinq nag di demaat fii Mbelongij mm. ñu bëriwaat fa bëri bu métti arbitre ñoo ko jàppale mu génn ma foofu par point. may wax ni billaahi. nga ne aw mos nga daan bëgg Saalum. parce que génn par point Joal. Ah. waaw ma yàlla lay waxee barki alxuraan. Ah. Ah. ba léegi euh, balaa ñuy ñëw ci poids lourd yi ñëw sa génération maanaam ñi ñi ñi ñi nga xam ne ñooy def tànk. Mm. ah ba léegi Ndiol bu Sana est-ce que mos nga bëgg moom. Ndiol bu Sana waaw bëri nañ. Mm-hmm. ñetti yoon ñetti yoon. ma daan ko ñaar mu daan benn. Mm. Ndiol de. waaw. Mm. bu ñu jógee sa Ndiol ñëw si xaritam mbi Ndiol bu zoa euh, kii mignon minjol mom beur nañ ñet hmm. yoon mosuma ko daan moma daan ñet yëpp mo lay daan quoi waaw caatu Ayda Elas Ayda kan El Hadj Ndiaye daan na ma ñaari yoon moom daan ah, daan na la uh-huh. parce que moo jëmul euh, film la bo final boobu mom la daanu wa mo daanan film la wa ñew ci côté euh, palmarin gi Samba Cissé bac Samba Cissé bac hmm. Samba Cissé daan na ko ñaar yoon hmm. uh-huh, moom mosuma daan mosuma daan uh-huh. ay Bukar Seck mosoo bëre ak moom non Bukar mosuñoo bëre ay ñoom Babou Sarr Baboussa daan naa ko benn yoon. Hmm. moom mosuma daan. kon Ogdi mos na daan Baboussa. waaw daan ko ren rek la. ah waaw Ndiaye Ndiaye Fatick. Ndiaye Ndiaye Fatick. ko génnaa ko par point fii. Hmm. Somone. Somone hmm. Ogdi xanaa yow poids léger yëpp nga jeexal. poids léger yëpp bëri naa ñoom kay. Ah. waaw. Gaye Fama daal. mosuñoo bëri ñu ñaar. mais ñu si des ñëpp. ay Ibso gars yëpp daan leen. mos nga daan Ibso. waaw Ibso bu baas. Ah. mbëgg est-ce que ñoom diisuñu ci yow. daan naa ko. Ah. Basaar laa ko daanee sax. Ah, Basaar. carré ah, final. Hmm. waaw ay ay ñoom Badara internet bëggee ñoom. Badara daan naa ko benn yoon. Hmm. Hmm. ak kii Kor Ami tamit daan naa ko benn yoon Marabo. ak Tiis. daan naa ko tamit benn yoon. <laughs> Eh. Eh, Boros mosoo bëri moom. non Boros mosoo ñëw bëri waaw. Uh-huh. Uh-huh. oui mais Ordi eh, ñu ñëw ci drapeau chef de l'État bi. Ordi ñu gis ne Dibou Kor Sagne. bi nga xam ne deux ans ngi teg ne la nga ko di ko jël. Ogdi hmm. nga ñëw génnee ko. Hmm. nu mu demee noonu Ogdi ak noo waajalee drapeau chef de l'État bi. ah drapeau chef de l'État dama ko waaj rek. Hmm. ànd ak samay mbokk ànd ak sama grand on a dix. mu may teg lu métti. billaahi gars yi di naan ay booy mënu faa am dara ndax gars yi dañu ëpp doole yooyu. chaque jour mu may motiver yóbbu ma Gambie. ñu nekk tamit di entraînement dañ doon wor sax di entraînement billahi ma ak total ma ak mom ñoo bokkon équipe sax waaw ñu waaj ko normal nak ànd ko ànd see gars yëpp mooy loolu ma contact ak ñinga xamanteni ñoo gëna dis ay dibu koor yi ci len daan ma sama xel barki yalla suma ma demee damay am dara moy lool waaw sama gëm-gëm dal moo may li mom man mais avant ñu ñëw fofu euh c'est la première fois ñu lay sélectionné de chevalier da wala drapeau chevalier da waaw waaw wa caisse don nañu don nañu wax nak ak Assane Cissé mais xëy na dañ dul juboo daal. Mhm. fi ñu ma bëgg a bëreloo. Mhm. tamit ak li ma bëgg a bëre doonul benn daal. waaw ma arrangé daal. Mhm. te yenn wàññi day xaw a métti si man daal. kon la première fois nga dem euh, ren. waaw maa ngi doog a dem drapeau seul daal ren waaw. nga dem finaalu. waaw dem finaalu. di ko sant yàlla bu baax a baax. mais mais ba léegi nga ñëw est-ce que euh, Ogg mun na ñëw ci combat moom ak Dibo Koor bi. <laughs> Dibo Koor noo ko daane. <laughs> non moom xamuma moom moo tax. barki yàlla bañ dajee. mooy jéem a faxaat ak yooyu ma bàyyi ko bëre bi rek si laa jégi-jégi fii la ko wër ko ndaw mu tëral ko mooy loolu def ko mhm. daal tëral ko mu daan waaw mhm. Mhm. nga daan di bokko ah di euh, nga dem final yaakaar na yaag bandi 40 ans yéen a yéen a tase final uh-huh. est-ce que ogdi euh, mën na ñëw ci combat boobu combat mook bandi ñu bëri ñu naan non dara ëpp doole yooyu yooyu du cadre de doole mais gars yi loolu lañu wax di nu mu demee noonu dañ doon naxante rek wala ah. dama ko doon jéem a nax mu dal sama kaw mooy loolu barki yàlla loolu moo waral loolu mais su ma ñëwoon rek bëre xam nga bëre moom affaire de naxante la rek boo xoolee mhm. danga koy jéem a nax mu dal sama kaw mhm. waaw kon gisoo ne waa ji ëpp la doole non ëpp doole gaa yi ëpp ñu ma doole mhm. ah dégg lu moom mbëru tànk yi débo kii laa si musul bëre gaja faama kese laa si musul bëre ñu si des ñëpp bëre naa ñoom te laaj leen ndax moo di ordinateur yi ndax ñoom ñoom ëpp doole wala waaw kon gaa yëpp laalante ngeen gaa yëpp laalante nañ barki yalla mm. bu ñu jógee fo euh bi nga joggé drapeau soldat bi mm. euh yenen équipe wowul la pour xam nga jëm leen indi euh, pour euh, année prochaine wala ah caisse dal ma ngi dégg ñuy wax dal mm-hmm. mais confirmé gul dal mm. man dal ma ngi ni waaw ma ngi ci entraînement ma ngi ci luma nekkon ba légui waaw ku fay lu baax nga dem ah waaw inshallah kay <laughs> wala hmm <laughs> tay mbokk buñ nango kay ku fay lu baax mo dem inshallah hmm ok de euh, nga joggé ci drapeau soldat bi bu ñu ñëwee foofu ñu euh, ñëw sànq ci biir wax nee nga euh, poids bu yu daan nga leen. Euh, Ogde est-ce mën nga ñëw ci poids gi nga daan. poids lourd yi. Mhm. Toubacouta génn naa ko. Mhm. génn Biram Bisin. ñu mhm. ko wax de sax ak kii Simon Niodior. waaw at Mamou Zidane. Mamou Zidane men. génn naa ko ñaari yoon. waaw parce que man seetaan naa ren Ibamar. Ah. nga ko. Oh. dama koo daan ñaaxar. ñu xëy Ibamar ma daanaat wàllu daal ay ñoom building. mos naa koo daan benn yoon. ñooñu daal laa laa laygul daal. mais Oudé ñu gis ne saison gan Oudé euh, mise yu mag yi presque yëpp da nga nagu de. <laughs> waaw yàlla rek. parce que ñëw nga ñaar final foofu yaag bâtiment bu moo neem. Eh. yaag bâtiment c'est la première fois ngeen bëgg foofu wala. première fois waaw ñu daje waaw. mu daan la mu daan la waaw. nga ñëw euh, xaw ma campement ngir nga finaal foofu aussi. ma ñëw Somone. Ah, finalu ko waaw. waaw ah, ñaay baran wala. waaw maa kii. Hmm. Petit Sélé Lamine Petit ah. mm. mu daan ma final. mu daan uh-huh. mm. mais yaa ngi nee nga mu daan la final. Mm. comment ça fait ngeen bokk benn secteur bi nii mënoo leen mayante wala lu mu demee noonu. non lamb la rek. Mm-hmm. Petit boo xoolee maa moom. Mm-hmm. ay doomu nijaay lañ doomu bàjjen. te terewul Kamboumaa la dëkk Igri Kamboumaa la nekk. mu nekk Igri Saly. Mm-hmm. mooy représenté Kamboumaa. man mooy représenté Saly. kon daal lu ñàkk fere wul dox suñu diggante. te man gox moo ma yaakaar. dëkk moo ma yaakaar. wóor na yàlla. kon am na yoo xam ne daal tu ma tu ma si dugg daal mooy loolu. Mhm. Uh-huh. waaw looloo tax daal ngeen ngeen di bëre. waaw loolu moo tax ñuy bëre waaw. Mhm. Uh-huh. mais Ordi est-ce que mos nga am euh, combat arène. non Ordi mosul am combat arène. mu demee noonu. non daa jot a góor rek xëy naa lu jot yàgg. lu jot yomb. wala Ordi daa ne ñemewul compagnie wala nu mu demee noonu. <laughs> déewul noonu sax. Ah. xëy na lu jot yomb daal. Ah. waaw lu euh, ci ci ci ban écurie nga nekk. Écurie Saly. ñu sali. ñu sali waaw oh, ko sa ménager. Assane Cissé. Assane na daa amul temps nag moo tax. ñëwul waaw Pa Assane. moo mm, sa ménager. waaw waaw. moo sa quoi. Mm. Eh, instant yow di koo soxla koo bëgg a bëggal. man. Mm. waaw maa fi rek ku ñëw rek baax na fa mu nekk nii. ku ah. ñëw daal samay mbokk bu ñu ko nangoo. baax na mooy loolu. billaahi non oh, mais Ordi la main de chose yow am nga koo ciblé. <laughs> non maa ngi fi rek li ma la wax rek ku ñëw rek baax na mooy loolu. Hmm. billaahi. Hmm. Ah. mais Ogdy ba léegi euh, ci biir waxtaan bi Ogdy nu muy waajee ay lambam est-ce que Ogdy day toog des fois euh, nga gis nga gis lamb comme nga toog nga ni lamb ji euh, nga gis ko quoi xam nga ci ay gént yu demee noonu est-ce que Ogdy des fois loolu da lay dal. Ah, kan man. Hmm. wóor na yàlla man su ma doon toog. ah chaque lamb. comme mooy xaar lamb ju ma. gis daal dem kon caaxaan du ma génn si dara boobu barki yàlla laamu su ma si desee su ma nee dama koy jël dama koy jël billaahi loolu moom yàlla may na woo mhm. waaw dañuy waajale léegi saison bi ak mbapat yi di ñëw ak li des saison bi des saison bi waa ànd see sama mbokk rek chaque jour nekk ci entraînement yi mhm. mooy loolu mhm. chaque jour daal maa ngi ci entraînement yi ba su ma tenteree sama feex sama yaram bi rek ma dem bëri ji mooy loolu. Hmm. nekk di nekkagul nekkul ci hivernal te te tëjagoo saison quoi. man non tëjaguma saison mbër mu ndaw la. ah mbër mu ndaw. waaw mbër mu ndaw tëj saison. non man moom du ma tëj saison man. ah, ah tout le temps mën naa dem bëri ji. mën dem bëri kon Ogde mën nañu ko xaar ci mbapat yi am ci nawet bi wala. incha allah kay maa ngi ñëw. Ah. chaque année kay damay ñëw Joal. Hmm. bëri ji foofu ci hmm. mbapat yi. mais lu tax doo ñëw côté Palmarin ñëw côté Palmarin am bëri na ay mbapat de. côté Palmarin bi waaw <laughs> est nekkul di daw gars yi sax. non yow gars yi kan daw. ah gars yi kan. ñi fay nekk. ñi fay nekk boo xoolee daan naa leen di. Hmm. waaw kon ah. amatuma ku may daw. Hmm. <laughs> barki yàlla. Hmm. <laughs> waaw. donc daa mel ni yow gars yi ngay soogaale de. non gars yi ñu fa nekk yëpp daan naa leen. waaw ay ñan ñoo ko fay jël ay ceeb. ceeb daan ko ñaari yoon. ñu fay jël ñëpp ñoo xoolee daanaa naa leen ñii ay quatre fois ñii ay ñaari yoon ñii ay ñetti yoon. kon mos nga daan ceeb bu soir. ah dégg nga mburu tànk yi. gaja faam rek. nga si mondel yim ne Modou daanu gogo mm. mais ñi ci dess ñep mm. ñi ay 4 mm. ñi ay 3 wa ñi ay 2 kon Ogdi da nga tegal gaay yep waaw wax dëgg na yàlla mburu tanki ñom ñep mom daj nañ yo est ce que est ce que nekkoo di nap gaay sa non nap fan <laughs> <laughs> damay ñëw indi leen li ma mun rek waaw que le meilleur gagne uh-huh. mo nga bëgg 15 15 ndangaan 15 mo xol waaw 15 bëri nañ moma dan fele fële ñu ko waxee njanda waaw ñu ñëw kamma mm-hmm. sama loxo bi ba mu dañee noonu nag après si laa disqualifié ah, wu waaw mm-hmm. Mm-hmm. est-ce que Ogde mos na bëre Brosse Babou Dieye Brosse mosuñoo bëre mosuñoo bëre waaw mais Ogde euh, à chaque fois ñu lay gis euh, même si entraînement yi yaag total bu Joal sa diggante total lan la total billaay sama xarit a ngoog kooku foo ko gis-gis ma tamit nit ku baax a ngoog barki yàlla lu mu bëggal boppam la ma bëggal. Mm-hmm. billaa walaay taalaay. Mm-hmm. xoola nii nii rek mu may woo Joal pour ma ñëw toog foofu entraînement. Mm-hmm. billaahi chaque jour bu ma déggul damay woo. aw ma fayam daal ak seen waa kër ñoom ñëpp. billaahi ma leen ak Ibba. mu mooy loolu. lu nekk lay def ngir man tey jii rek la ma war a dugalal protéine. billaahi mu ñëw mooy loolu. kon tamit waa Joal moom amu seen fay. surtout waa Kañam total moom. amu seen fay daal barki yàlla. <laughs> mais eh, bu ñu jógee total sa diggante ak Ona 10 lan la. Ona Ona sama mag la hmm. moo ma yar. Hmm. kii moom kese moo la mën wax moog total. Hmm. kuy kuy ordi bu sale. moo ma yar tete ma ba ma toll nii. billaahi saa su may dem làmb. dama koy tàggu bu ne ma demal ma dem bu ne ma bul dem ma toog. làmb ju may njëkk bëri ji taaxum maamam ñoo waajandoo. ñu dem ba si biir moom mën demul. ngir rek bëgg ma ñeme dem man kese ma nak sama xel kii du ma gën a gore xaaral ma dem balaa mu naan damaa ragal la nga moom kaañokat la waaw si <laughs> dem finaalu après mu xëy ñëw jël poids lourd mm-hmm. kon la bi ñu la nga euh, sa kan man maa ngi gërëm tamit waa Saly yëpp mm-hmm. di gërëm Paasan Cissé mm-hmm. di gërëm Lebal rawatuma Sidaat wóor na yàlla ñooñu moom ama seen fay daal lu nekk la daj lu ne lu ne lu ne la daj ngir man dañuy def billaahi ngir man sama yaay tamit aw ma fayam billaahi moom mooy sama sëriñ duma ma dem si kenn di ko ñaanlu mooy sama sëriñ damay dem foofu damay dem si mooy su ma su ma dem làmb damay dem si moom ne ko ñaanal ma mu ñaanal ma saa dem jël kon kooku aw lu nekk lay daj tey teggi na tam di ma ko jox ma koy préparer saison billaahi waaw tamit maa ngi gërëm tamit ay Babacar Kotsu Mour Sarr ni koy waxaat see Pape gaa yooyu yëpp daal maa leen gërëm ay dàmbooj mooy loolu maay mm-hmm. maay gërëm tamit Babacar mm-hmm. kot moom ma yor fii sàll fii fii laa doon préparé chef de l'état bi ba mu jógee Gambie fii laa ñëwoon toog ko préparé ak samay mbokk mooy loolu. Mhm. bilaahi mais Audy balaa ngay jeexal ngërëm bi xam naa di nga yóbbu euh, ci hôtel yi parce que des dama lay gis ngay esa di nekk ci piscine yi di <laughs> ah, lekk sa xaalis. <laughs> ci tooñ Lamine TV. <laughs> waaw yow ragaluma lool. Ah. waaw yow kay yaay bañ fu mu nekk nii. Ah. mooy yi bëri nañ fi. Mm. tamit yaa ma gën a xam. mooy loolu piscine yi bëri nañ fi. Ah. <laughs> nee naa Lamyn TV. Hmm. salimo moo dàq sama. Salim uh-huh. hmm. boo xoolee kër goo dugg piscine la. mooy loolu. Hmm. tamit waaw yaa ma gën a xam. sant yàlla daal. Uh-huh. kon ñu bàyyi la nga continuer kii bi rek ngërëm bi rek. waaw di gërëm ñëpp. waa Salim ñëpp maa leen gërëm. di gërëm sama booy bi. sama turandoo. maa ko gërëm bu baax. ay on a 10 waaw. on a kaa yëpp total. Ibba Ibba ñëpp maa leen bëgg ay Modou Sarr ñoom ñëpp daal awma seen fay mm-hmm. mooy loolu te wax waa sare ñu jàppale ma mm-hmm. boo xoolee ñetti ñooñ ma la lii ma mm-hmm. ñooñ kese ñoo may ñoo may taxaw te loolu du yoon man ñëpp moo ñoo war a jóg jàppale ma say laay xeexal xeexlu ma fen barki yàlla boo déggee ordinateur bu sali pour na xam ne kooku sali lay xeexal mooy loolu mais jàppalu daal dafa xaw a des dafa xaw a des dëgg mooy lool billaahi boo xoolee samay morom jàppale lañ ma ëppalee rek billaahi ay gaja faama ay boros mbëri mag yi daal foo leen dégg rek ma fa war a dégg lu toll ni sali mm-hmm. kenn nit wala ñaari nit kese di fi bëri mm-hmm. jàppale bi des noonu mm-hmm. man daal maa ngi woo ñëpp bàyyi ma kenn ñoo jàppale ma waaw yaa ma gën a xam mm. di looy wax waa Zambro TV nga xam ne ñoo euh, jóge nañ ba Palma ñëw fii sali seet si la ah Zambro TV aw ma seen fay tamit xam nga def déplacement bi yombul ngir rek kii seet si nit mu wane lu mu mën wane tamit ay jëfam mhm. mooy lool mhm. kon tamit di leen ñaanal yàlla def ba ngeen defal leen daal ngeen am ay télé yi télé mhm. mooy lool acca gars yi nii la tëddee ah champion bu mag ko xam ne kenn dootu ko présenté muy Ordi bu Saly moom lañ seesi woon fii nii ah waxtaanam moom ci carrière am ak ci saison bi aussi ci parcours bi ak ci lépp kon Ordi ñu ngi lay gërëm lay jaajëfal euh, jaajëfal merci beaucoup ah ok uh-huh. acca gars yi ba léegi ah ginnaaw bu ñu defee interview ak champion bu pare euh, ordinateur bi sali ñu ngi toog ak coach mi ah grand nuyu nañ la. ah fay nañ la ñu ngi leen di siyaaru baax di leen jaajëfal dina wax li moom nees na quoi li moom rafet na trop trop bi laa. tur bi. man Babacar laa tudd coach Babacar. coach Babacar coach Babacar ñu fekk mbër fii nii ci biir salle bi eh, muy entraîné mbër ñaata séance lay am par euh, par journée. waaw mbër moom day am deux séances par euh, journée. Mm. di ko liggéey tamit euh, ak euh, doole ak physique mm-hmm. ak lépp li nga xamante ni mbër da koy préparé pour euh, doon champion ci moom da koy liggéey quoi mm-hmm. macha allah waaye mm-hmm. di ko jaajëfal ak moom tamit ndax dafa neex a liggéeyal quoi dafa neex a liggéeyal dafa bëgg waaw man moom bu ñu gisee bu bëgg ñu ñëw pour liggéey bu liggéey ak ñu dañuy kontaan dañu am sax sawata pour liggéey ak moom te moom suñu borom def na ne moom xam nga dafa bëgg affaire yi teg ka ci yoon. Mm-hmm. loo ko def loolu lay def loo ko uh, bàyyi loolu te da koy bàyyi automatiquement. Mm-hmm. kon da koy jaajëfal rek si loolu. Mm-hmm. kon instant yi loo koy conseil. conseil am naa kon mu yokk liggéey. waa man dama koy wax li nga xamante ne mooy dëgg. mën naa ko yokk liggéey. utal doole. bëre baa ngi doole jaa fi manqué. te xam naa ne am na doole trop. nekk na ci booy yi nga xamante ni ci ëpp doole boo ko doole. nga da koy teg si yoon. ndax da koy day liggéey mu xam ne man liggéey na ma koy yan lu métti fii fii day liggéey lu métti wax dëgg yàlla doo ko yëgam non non non non ku bëgg dara doo ko yëram non non doo ko nax doo ko yëram da koy wax li nga xamante ne moo nekk nga tekk li nga xamante ne moom la attan te moom macha allah amul lu mu attan bilaay mais Audy daa mel ni ñaari course nga am de waaw ñii nga mooy ñaari grand lañ kii mooy course kan Léo coach Léo waaw ah, man mooy coach Léon euh, sama wax nag di ci bari parce que presque coach Babacar wax na lépp affaire bi ñu demee à part di leen jaajëfal di rafet ba di ngeen euh, mission bi ngeen di dox en plus mhm. xam ne mbër moom je pense c'est ordinateur waaw euh, ça fait je pense qu'il a une fois préparé là je pense da nga amoon combat chef de l'état en plus moom ñëw na ba fii nii remercier nañ aussi liggéey boo xam ne aussi ñëpp kontaan nañ aussi ci moom ñun aussi coach yi kontaan nañ parce que ñoom coach Babacar ñoo fi nekkoon di koy jàppale xam nga man moom des fois li may toog ci salle di may tourné di ñëw quoi en tout cas di ko encouragé di ko ñaanal yàlla aussi quoi yàlla may ko weer gudd fan aussi quoi jàppale ko aussi ci métier aussi mu gën a ci quoi vraiment on est là nag nañ ko jàppale bu baax aussi quoi ci lépp lu ñu man ci suñu xam ak ci suñu doole aussi waaw di la jaajëfal yow tamit aussi kontaan bu baax ci yéen. mais ba léegi ah, ñu ñëw ci drapeau chef bi ñu gis ne euh, Ordi euh, c'est la première fois mu ñëw drapeau chef mu ñëw euh, def fa affaire ñëw dem ba finaal noonu la ñu waajalee drapeau chef de bi. nañ dañ ko pare physiquement. mentalement techniquement. Mhm. ndax dafa ñëw ñu waxtaan ci man ak moom. ma xamal ka li nga xamante ne moo li nga xam moo la war a liggéey mu doon lu métti nag mu doon lu métti ndax daa waroon a perte poids xam nga daa jëloon poids wala perte physiquement da nga ko war a liggéey da nga war a liggéey physique lu bari te physique dafa métti liggéey te mbër yu bari ko ci liggéey loo physique fii mën ngeen a am foo leen jaar mais macha allah moom daa ñëw ma xamal ka li mu demee mu am benn problème bakkan bi moom la la la ñuy xam la ñuy xool ndax dina fi des ab du des amul benn problème mais ba mu ba mu paree ba mu ko entraîné ba mu paree man physiquement xam naa ne dina ji te en même dina am ndam ndax dakaa liggéey quoi aussi da ko jóg ndax fii mbër bu fi daj lu métti am li nga bëgg. bilaay amul amul amul du nëbbante quoi ndax euh, fii boo nee yow mbër nga te nangoo entraîné suuf si rek li nga bëgg à cent pour cent doo ko am nga dugg si saal nga ñaan yàlla yàlla may la coach mu teg la ci yoon mm-hmm. nga am li nga bëgg mm-hmm. loolu kese la mm-hmm. te moom suñu da ko teel a dimbali mu am expérience boobu noonu kon ndax xam ne kii bëgg na daa bëgg doon champion moo moo mu dugg firi loolu yëpp ñëw dem ñu dimbali ko ci loolu rek ànd ànd ak moom moom jeex rek am benn problème moom su ma gaañoon la quoi su ma gaañoon la waaw ndax man damaa man maa bëgg a liggéey ak moom waaw ay mbër yu bëri dañ fee ñëw man man maa choisir man moom ñu liggéey ndax dafa neexal liggéeyam mm-hmm. comme ni ma la waxee sànq rek mm-hmm. neex naa liggéeyam ñeme mm-hmm. na coono da ngay teg si yoon day récupéré xam nga te mbër la quoi champion du ma ko seetaan. mais est ce que day tëdd heure sax. Hmm? mais est day tëdd heure. day tëdd heure gis nañu suñu ñàkk ba ñu tëdd heure bu doon ah. tëdd heure day dina feeñ ci moom. Ah. waaw kon Audy lay yokk ci e, ses coachs yi lu ñu wax. ah lu mu wax moom dañ koy rafetlu rek. mooy loolu. li wax yëpp noonu la demee. di laaj affaire moom jël nañ ko ci entraînement normal deux séances chaque jour mooy lool waaw di sant yàlla rek mooy loolu jaajëf ok jërëjëf